الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين mbokk جلت نيونج دير سواتي حديث أم الزرع بو zara bu am ci lañu nekk fan yi yépp di ko jàngat ñeenti jigéen yi jàll nañu kenn ku nekk wax na jikko boroom këram ak ni muy dundeek moom la ca baax nañu ko jël en tant góor jëfee ko ak jigéen waaye la ca bon ñu bàyyi ko tey ñoo ngi ñëw ci juróomeelu jigéen bi juróomeelu jigéen bi dafa wax ni zawji ida daxala fahida wa ida xaraja asida wala yusalu amma ahida zawji ida daxala fahida wa ida xaraja asida wala yusalu amma ahida moom it ŋàññi na boroom këram xas na ko ndax yii mu wax ci jëkkëram du melokaanu góor gu baax mu ne sama jëkkër day su liggéeyee ba wàcc ñëw mooy isaa daxala ne fahida day mel ni rekk am tene te rap la bo xamné ci xeetu segg la bok li ëpp da fay faral di ñuul bët yi day xonq dafa am xet lool te li muy nelaw dafa bari kon ndaw si dafa bëgg wax ni jëkkëram ñemewul ndox du sangu day am xet ay poqataanam day xeeñ ba soo bëggoon a beej ak moom xetam dalay dàq du socc ay bëñam du damm ay weyam du dagg ay weyam du dindi kawaru poqataanam ak naqam maanaam liy tax mu am set ba jigéen ñeme koo jege du ko am mbokk yi am na góor ñoo xam ne dañuy kaas naan sama jabar daf may daw fekk dara sababu ko lu dul góor gi la say poqataan day xeeñ doo ko wef sa kawaru naq dafa bari ba lu ñëw des ca jamono bu nekk dangay ngay nekkee tilim soo liggéeyee ba ñëw doo sangu loolu góor gu mel noonu góor gu doy waar la ñett yi yépp défaut la mais défaut bi gën a grave mooy fahida su agsee rek tëdd na nelaw du xool na ci kër gi du xam lu xew du xam lekk biñ ko taajal fan la jaar su ñu ko taajalee reer du ko toppatoo moom daal bu ñëwee bu tëddee rek xaran na nelaw ba set jigéen bëggul góor guy nelaw lu bari bépp góor guy nelaw lu bari xelam guddul boroom xam-xam yi dañ ni ku tëxit mooy nelaw nelaw yu bari ngay boroom kër lu yëngu nga war a jóg lu yàqu nga war a defar war a garanti sa jabar ci aw fit waaye yow boo ñëwee lal bi rek moom nga jël njëkke nelaw rek di xaran te képp kuy nelaw lu bari li muy tekki mooy mënul sëy moo tax ndaw si ne zawji ida daxala fahida sama jëkkër bu duggee daal comme tene su ma takkee samay fer defaru mel na ma war a melit moom duma xool ndax ku gëmmentu du gis ku gëmmentu du bëgg ndax gëmmentu ak màndi ñoo yem kon bari nelaw baaxut ci góor baaxut ci góor yooyu na ko moytu bu baax kon da ko mila misaalalee bari nelaw sàggan te góor gu muus warul bari nelaw warul sàggan kon ndaw si daal dafa wax ni jëkkëram coono kese kese kese la du ko wàcceel coono waaye da koy yokk coono li gën doy waar nag mu teg ko ci beneen melokaan bi mooy jëkkër gi su génnee kër gi mu ne wa xaraja asida su génnee comme gaynde day liggéey day uti day góorgóorlu day kërti kërti lu nit bëgg mu jàppale la ca waaye mënta jàppale waa kër gi ci dara su romboon kuy defar sàkket mu dimbale ko su romboon oto bu paan mu dimbale ko su romboon kuy gas mu gasle ko waaye su jabaram yenn woon siwo di génn du ko yenni su jabaram sonnoon ci fóot du ko dimbale su jabaram fakkastaloo du ko jàppale kon moom daal njàmbaaram ci biti la waaye du ci biir ñeenteelu jikko bu bon bi te fa lay jeexee mu ne wala yusalu amma ahida mu ne sama jëkkër daal moo dàq dige waaye du ko def mukk loo wax mu ne la incha allah bu weer dee fan yi su ma amee dinaa indi danaa leen def bu paree passé na fàtte na ko bis boo ko waxee la nga waxoon mu ne la ma defuma ko bu ma rey bu ma dàmm bu ma sonal loolu mbokk yi nekkul melokaan bu baax walla wala yusalu amma ahida kenn du ko laaj la mu digle woon mais loolu moom góor gu baax du ko def kon góor gu baax day ñeme poos wétte gi waa këram di waxtaan ak ñoom di xam seeni jafe-jafe di toppatoo seeni mbir bëgg waa këram yëg leen kon loolu mooy melokaanu góor gu baax kon lu jigéen jii daa xas jëkkëram kon ñun góor ñi nañu fexe ba melokaan boobu ñu génn ci yàlla yàlla jàmmal ñu jàmmale